wax dëgg yàlla sama xel dal na ndax euh, ku gis tey rassemblement bi gis caravane mu gis mbooloo mi fii defe naa ne sa xel war naa dal kon sii di suñu xel dal na bu baax a baax ci première sortie bi. li waral li waral tey mouvement bi ak bëgg jëlaat dëkk bi mooy loolu cité naa ko defe naa ñaar yoon bi mooy ñetteel dëkk bi li fi yàqu tey boo ko doon lim doo fi jógee tey defe naa ku yeewoon Dut Thiam Samba Yàlla Basiru Ndaw Amadou Ka Moussa Fall ba ci Bas Ndaw ba Iba tey. war leen dëkk fi mu nekk nii danañ am lu leen métti loolu nag ñun daf ñu métti famille Iba Gueye famille politique bi parce que li tax mu métti ñu mooy dëkk bi dañ ko liggéeyoon ba mu jekk tey jii mu dem ba dikk fii nga xam ne nii la yàlla xam doy na dëkk bi yàqu na tali yi tali bi jógee tribunal jëm ci kaw bu nawetee kenn du fa jaar tali la woon ñu defar ko ba mu baax yàqu na defaruñ ko jéemuñ ci dara grabaal lañ fa sot loolu suñu xol yi la nekk dafa ñu metti te loolu suñu sañoon du am beneen bi tali bii nga xam ne moo boo demee ba gaawaan ci poste courant bi nga jàdd jël boulevard bi su nawetee kenn du fa jaar oto yu mag sax fa jaar waxuma laa yu ndaw yooyu bokku na ci ñu gën a metti daf ñoom metti ba nga xam ne nii am na fu ñu commencé mais amul fu ñu yem kon loolu bokk nañu lu ñu gën a yëkkati pour ñu jógaat pour defar dëkk bi li fi nekkoon nekk si néew lii jaay nañ ko lii def nañ fi loo xam ne yëkkati nit ñi fii donc yooyu metti na ci dëkk bi te ku ne xam ne population bi nit ñi dañ leen war a jàppale mais waruñ leen a teg fitna yooyu yëpp ñu dajale ko sii di muy lu metti te ñëpp la metti koo xam ne sa sa sa cofeel mi ngi ci dëkk bi wala am nga yéen ci dëkk bi loolu noonu métti na la loolu moo ñu mobiliser tey famille politique Iba Gueye bi kenn desul ñu jóg pour récupérer li ñu moomoon sàmm ko ba fa ba Iba bàyyi woon ñu commencé foofa àggale ay programme yi nga xam ne amoon na ko te yooyu danañ ko jëli indiwaat ko ci réew mi muy njariñu réew mi njariñu dëkk bi mouvement bi dem na ci UCS UCS defe naa ku ne xam ne parti parti mooy parti Abdoulaye Baldé ci récépissé la ñu la ñu dem mais liggéey bi ñi ñu ko àndal mooy ancien Iba na ñëpp xam ne même mag ñi demoon feneen dañuy ñëwaat parce que lii moomeelu ñëpp la fu waay nekkoon gis ngeen mag ñi ngeen gisu ci kaw ñeneen ñi danañ ñëw ñooñu dañuy récupérer benn par benn ba mu jeex ñu continuer liggéey bi fa mu nekkoon ñu delloo ko fa te dëkk bii dañoo bëgg mu bokk ci dëkk yi nga xam ne moom la ñuy lim daa la jox benn exemple camion mbalit yi fi nekkoon Iba ko jëndoon benn yokk ci benn dawatut léegi dëkk bi lan mooy koy setal wala heureusement ba UCG ñëwee di ci góorgóorlu mais tey bu doon camion nekk na fi tey Mbàkke moo nekkoon dëkk bi gën a set ci Sénégal tey ku fi ñëw salte gi lay gën a seetlu te loolu ñàkki oto parce que da dépendant rek loolu nag bokk na ci yi nga xam ne siri mooy li ñu gën a metti ñun yàgg nañu liggéey nit ñi dañu defee ne démb nañu commencé trois mois des ñun ñu ngi doon liggéey ci suuf di def lu ñu war a def xam nga fësal gi su jotee rek tey jii nit ñi gis nañ te ku ne xam ne li ñu gis fii tey du liggéeyu démb liggéey bu yàgg la noonu donc loolu soxla wutoon yaakaar naa ca njëlbeen nga ñu koy wax ni di ko leeral donc résultat tey moo lay won ne liggéey bi vraiment du tey lañ ko door te it du ñu toog fii ba jour élection yi du ñu toog du ñu tay du ñu bay fépp fu ñu mën a dem wax ak ni ñi leeral leen li xew ci dëkk bi ak ak fañ ko bëgg yóbbu danañ ko def boo au soir du 23 janvier ñu remporter élection yóbbuwaat ko fa mu nekkoon delloo dëkk bi fa mu nekkoon. ku ne xam ne tali ci biir dëkk bi commune bi moo ko war defar loolu moom suñu jëlee dëkk bi bokk na ci suñu ay premier projet danañ ko defar gis nga Iba defoon na fi ay puits yoo xam ne nii fu daan taa bu tawee ndox mi dina ci dem dina dina ci jaar dem la preuve en est que euh, le defar génnee ko raccordé ko ci li fi bëggee defoon pour ndox mi di bàyyi ko mooy suñu première priorité mooy delloo tali mu mel na meloon ba bu naweteeg bu nooree nit ñi fu ñu bëgg a ñu jaar jaar fu ñu bëgg a jaar parce que maire bi ba tey jàpp naa liggéey bi des na ci côté boobu déformat euh, dañ ko war a informatiser comme comme comme comme ni nga xam comme comme ni nga war a nga xam ne su ëllëgee tey nit ki parce que ba tey da ngay dégg nit day ñëw laaj fi këyit ñu naan la lii nan la je pense que suñ ko informatiser a mel nit ko am donc loolu loolu mooy liggéey bi njëkk ci maire bi problème yi nga xam ne moo fay am mooy anarchie bi rek mooy def lii def lee bind fi denc fee mais suñ ko informatiser da yaakaar naan tappale yeeg yeneen yu bëri yi am dootu am te loolu dinañ ci taxaw suñ kéem lay kattan may euh, dina manqué ci ci ci anam yu bëri benn anam bi mooy xale yi duñ juddoo du ñu leen déclaré wala bu ñu leen déclaré léeg-léeg ñu jaar foo xam ne nañ ko war a déclaré duñ ko déclaré noonu dinañu wutal wen këyit rek ñu dem su ëllëgee suñ ko soxlaa duñu ko gis kon donc dinañ def ay sensibilisation ci école yi recensé xale yi à ñu teel leen recensé dugal leen wutal leen ay këyit ba suñu àggee ci niveau bu ñu defee examen du ñu am problème je pense que foncier bi moom ñëpp koy jàmbat naa la jox benn exemple ñaari terrain la fi bàyyi Mbacké amu fi leneen kër gii bi bi mu fiy dëkk fekk na ko fekk na ko nekkagul maire ñaari terrain yooyu ba tey jii mi ngi ci ay tapale ki caaxaan mënuñu cee jot ci ay tapale caaxaan kon loolu rek doy na exemple leneen li nga xam ne nag dëkk bi ñu ngi koy jàmbat ci caxat caxatee man mi am naa ay terrain su ma la ko naan ma déedéet mais loolu yëpp danañ ko delloo si ànd ko CARS ak domaine ñu teg yëf yi ci kenn du fi nangu terrain jàmbur ku ne la nga yor yaa ko moom ñu jox la ko li fi des ci dëkk bi ñu war koo dagg jox ko ñi ko moom wala ñi ko yeeyoo ñu dagg ko jox leen ko mais je suis jël ay terrain yoo xam ne ay nit ñoo ko moom di ko dagg di jox ñeneen ko nangu dëkk bi di coow loolu je pense que taxul a jóg dëkk bi taxul dëkk bi baax li am solo mooy kenn ku nekk li mu moom nga jox ko mm-hmm.